la mu wax moom dinaa ko wax xëñ na kon Kébé dana ci wax nee na ki nga xamante ne ni bii mooy le président Diomaye euh, dafa légitimer euh, les prises de position bi nga xamante ne ni bii moom la euh, en le nommant à un poste de de responsabilité ki nga xamante ne mooy Cheikh Omar Diagne waaw man man man xam nga ci li may wax man ci côté boobu mooy Cheikh Omar li mu yëkkati nii suñu mbindum mag ñi mm. am na ci loo xam ne dañ ko war a améliorer mm. man c'est ça qui m'intéresse parce que man dama jàpp ni bu ñëwee ci mbindum Sëñ Tuubaa mm-hmm. bi nga xam ne gisoon nañ ku ci mel ne maanaam ay kàngam ay kàng sax laa mën a tudd ñoo xam ne seen xam-xam mm-hmm. eh, ku ci mel ne Sëñ bu Buso rek boo ko ci jëlee day daa mat sëkk ko jaar fi ba jàll mm-hmm. gis mbindum Sëñ Tuubaa amul ci lenn loo xam ne mën na ko ci critique wala mën na ko ci ni dañ ko ci yokk ñemewuñu ko sax faf mhm. moom ndax dëgg yàlla bu bëggee toog di ñu gëm loo ni naan bind mi am na luñ ci war a yokk ak luñ ci war a wàññi laa dama naan il faut qu'il arrête quoi parce que xam nga nag euh, moom dama jàpp ni xëy na dafa jàngul xadis boobu yoon bi sallallahu alayhi wasallam naan min xusnil islaamil nit ki des fois mm. day am foo toll foo xam ni dafa bokk ci li rafetal sa ngëm nga maandu ci loo xam ne su yoon nekku ci mhm. ndax kiy bind ay xasidaam ba mu koy bind wax li mu wax ak fa mu tibb ay xasidaam euh, nga xam ni euh, koo xam ni nee nañu bind nga sept tonnes ak lu topp amul kenn koo xam ne mos na laa corriger lu toll ne virgule xam nga tamit nit maanaam nit nit kese nga mën a doon mhm. fii ku fi bind livre livre ñaari page boo ko bindee da ko liir liiraat ko jox Tata Zoli mu liiral la ko jox moom moomoo ñu liiral la ko nga dem euh, ñu ñu ñu ñu soogay ba gis ni amul benn jafe-jafe bu ci nekk mhm. mais yow tey suñu mag ñi ku ci mel ne suñu Tuubaa tey ñu ne la bind lu toll ne sept tonnes lu topp mhm. mosuñu ko cee corriger virgule kenn mosu cee nemmee ko faute ba tey jii ñuy wax ak yéen naar yi nga xam ni sax ñoom ñoo làkk ñoom ñoo namb làkk arab mm-hmm. jàng ko def ci yitte ju ne dañuy yéemu tey ci mbindum sëñ Tuubaa ba tey kenn mënul taxaw ni faute bi am na ci wala nangam mm-hmm. kooku noonu tey wax dëgg yàlla boo dikkee taxaw ak li mu wax bëgguma dugg ci yenn détails mm-hmm. mais tey mënoon naa indi ay baytu yu bari bari sëñ Tuubaa wax ni xëy na si ay xës daam fi la ko indee nangam ak nangam mais xëy na te loolu mën naa ko gëm keneen mën na ko bañ a gëm moo tax duma ci dugg mais dama jàpp ni mais booy xool ci xel rek. Mm-hmm. boo gisee kii li mu bind lépp. kenn mënu ko si kenn mësu ko ci corriger virgule wax dëgg yàlla tey jàpp naa que ni am na ci yaa des choses yoo xam ni Sénégal daal genre débat yi mhm. doo ci mën a wax doo ci mën a avancer mais tamit pas-pasu jàmbur nañuy moytu lu ci dugg wax dëgg mhm. parce mhm. que euh, tey ku ne xam na ni tarixa yi nekk fii ci Cheikh Omar Diagne c'est quelqu'un boo xam ni euh, tey am na lu mu defal réew mi mais tamit am na ci ay prise de position ak kàddu yoo xam ni tey euh, wax dëgg yàlla bu koy jël ci suñu kilifa yi ah laa nag moom Euh, dañuy taxaw ñu ñu ñu wax ko boppam maanaam ñu wax parce que ñun suñu kilifa yi la ñu am. muy Touba Tiwaawan euh, Njaasaan ak feneen ak feneen Laayeen. Mhm. kenn ku ci nekk tey sa kilifa nga am sa kilifa ngay tiitiroo. Mhm. gis nga nit boo ko bëggee maanaam boo bëggee mu bañ la nawloo. Mhm. wala mu bañ la euh, jàppee comme boppam rek xeebal ko bisam. baa nga xeebal ko sëriñam. Euh, mbaa nga xeebal ko lan ñetteel bi laa fàtte mais gis nga sa bés ak sa sëriñ mhm. képp ku lu koy xeebal rek xamal ni kooku moom deselutu la dara moo tax nañuy nañuy nañuy xalaataat kàddu yi wala ñu koy. ak xeeb ak ci sa voilà bala ñu koy bala ñu koy yëgee c'est important man ci côté boobu laa jox léegi nag li ci des mook euh, roi six bu Maroc. Mhm. loolu ba tey itam dama jàpp ni dafay dugg ci maanute. Mhm. parce que am na ci ma maanu dafa am solo daal. Mhm. am na ci yoo xam ne yow boo ko waxee tamit amul mu mënul soppi dara amul benn sens pour man jërul di wax lu dul di créer ay polémique ak coow. loo xam ni euh, pour man nag euh, amul sens amul soppi dara amul benn njariñ. soppi dara ci suñu dund wala ci suñu nekkin. wala ci suñu doxalin ñun ñaari dëkk yi loolu mën a yàq dara. Mhm. jàpp naa ne loolu moom wax ko bañ ko wax moom moo ko gën. moo tax ma jàpp ni tey en tout cas ci côté boobu noonu yenn ci ay sortem euh, war na ko xoolaat bu baax a baax. coowalam gi nga xamante ne moom la ñuy waxtaane nii est-ce que mën nañ jàpp ne mën na ko jural li nga xamante ne mooy poste bi muy occupé fële ci gouvernement bi mu dem ba euh, kii di Sonko ak le président Diomaye daal di koy teggi bon loolu mi ngi dépendre mais parce que nag dafay toll foo xam ni bu askan bi jógee itam ñoom du ñu man def lu dul topp li nga xam ni mooy la volonté populaire mm-hmm. c'est ça ah, parce aussi tamit yi am na ci ay sorte yoo xam ne yaa xayti xam nga <laughs> dama gis euh, bon xam nga ñun nag maanaam tarixa yi ñoom dañuy wax dañu weex donc quoi. Mhm. parce que am na yu ci rax yu bare bari yoo xam te wallaay gis nga sëñ Tuubaa mhm. wootewul lulul farataak sunna alxuraan sunna gis nga sëñ Tuubaa lu la waaye mën a wax mhm. lu dul ci alxuraan ak sunna la nekkoon wallaahi waxul dëgg alxuraan sunna maanaam euh, topp yàlla roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci loolu képp la sëñ Tuubaa jeexal dundam gi ba mu jeex tàkk leneen lu ci waay yokk nag nga sant Mbàkke nga sant leneen ak leneen yaa ko ci yokk Serigne Touba defloowu la loolu santu la ko. Mhm. léegi nag bu fekkee da nga bëgg a limité wu ci ñooñu gis ñoo xamante ni si ni tey maanaam ñoom xa ñoom boole seen bopp ci yoon bi mais yoon bi considéré wu leen. Mhm. comme ñoo xam ne ci yoon bi la ñu bokk. bu fekkee danga nga bëgg xool ci ñooñu ak di limité wu ci ñooñu loo xam ne am na ci jullit ñi mais ñaata jullit ñoo fi woote woo jullit mais jamono yonent bi sallallahu mais naa fekk fo la mu fi indi naafeq mais ci ci jamono yenn saa amoon na naafeq amoon na ñoo xam ni euh, féetewuñu fi féetewuñu fi dañu ñëw jël fii yóbbu fee indi fee indi fii nii. Mhm. ba yàlla doon doon ko doon leen doon leen moytuloo yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon loolu mënul ñàkk segam ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom moo ci muccul kon waxuma la ak kilifa yi nga xam ne tey yonent bi moom mooy seen kilifa. Mm. Mm, ci moom moo moom lañ def royuwaay tey liggéeyal ko jaamu ko. Sëñ Tuubaa bu taxawee man maay mbindaanu yonent bi sawaay jël léppam jox ko ak suñu mag ñu baax ñëpp su ma nee suñ tubaa alaaji Maalik ñoom ñëpp tey seen dund gi yëpp tagg yonent bi julli ci moom liggéeyal ko ah nga ñëw nag wax dëgg yàlla ñooñu sëñ bi li ñu liggéey ba suñu borom gërëm leen eh, nga jël liggéey boobu doon am lenn loo xam ni da ko ci bëgg a critiquer ci loo xam ni moment bi ñu fi nekk ba nañ fi jugee ñoo xam ni ay woroomi xam maanaam ñoo xam ni seen xam foo ko takk weesu na ko eh, wax dëgg yàlla mosuñu ci critiquer dara tey boo dikkee nag eh, di am leen loo ci wax nag wax dëgg yàlla loolu laa dama naan Mm, vraiment nag. Euh, mm. nañu nañu nañu delloo si waat xel yi ko baal rek non waaw nañu nañu <laughs> delloo si xel yi moom suñu waay la nag waaye boobu moom ah. waaw c'est ça. maa ngi gis euh, nu mu tudd euh, Binta Sarr bu Déthié Fall ñoom coowal Maroc bi moo leen. moo leen waaw moo leen intéressé ci mbir mi yàlla supporté sénégalais sénégalais yi lay nuyu oui sénégalais yi keroog suñu bi ñuy wax ci Déthié Fall xam uh-huh. naa saisir loon eh, dafa am lu rek tardé quoi lu baax rek la ñu wax ci Déthié ah, moom euh, c'est c'est ñoom nee yàgg dara sax insha allah eh, dinañu am quelqu'un ci ñoom fii nii ñu ñu dalal ko ñoom nag dañu dugg xeloo fi mu ne nii bint insha allah mais ñi ngi leen di bàyyi xel te ñi ngi déggante ñëw bu baax a ñoom mm-hmm. ñoom ñoom déjà euh, li ñuy wax nii rek ñoom ñu ngi wax ne sénégalais yi mhm. nekk Maroc déjà marocain dañu leen respecté cest dañu respecté sénégalais donc diplomatiquement dafa am loo xam ne dafa dox ci diggante ñaari réew boo nee Sénégal ak euh, Maroc mhm. defe naa euh, seen diggante ça date pas d'aujourd'hui te lu mel nii tey bu demee ba am rek euh, yaakaar naa ne bu ñu deful attention mun na am loo xam ne dina ko dina ko dina ko def si diggante ñaari réew yi même si mhm. yu ñu génne la yu yàgg yu yàgg la vraiment mais daal nañ def très attention ci kàddu yu ñuy yëkkati rawatina luy concerné beneen réew. Mhm. tey jii mën na indi yenn euh, réeroo ci sunu diggante ak yeneen réew yi te sunu mbokk yi fa nekk tey ñoom it euh, déjà ñu ngi seede ni maanaam ñoom sénégalais yi am na foo xam ne nii seen mbokku marocains yi fa lañ leen teg. Mhm. je pense que loolu itam c'est c'est important. ok très bien. alors Cheikh Bara mhm. ma bàyyi la nga tàggatoo ak amee internautes yi sànq am na waaw jërëjëf ah, merci Amadou tuddeewaat naa la. sa sañse lan la. <laughs> naa la eh, sañse bi Amadou ñaa eh, Binta Fall bu Déthié Fall. Mhm. ah ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. Binta Sarr bu Déthié Fall. <laughs> Fall gee mu mhm. <laughs> ñu ngi lay nuyu bu baax a baax ah. eh, di la bëggee di la wax nga nuyu ñu aussi waa Maroc nuyuwaale moo Souran Diop moom itam technique caméraman la woon. fii ko. mi ngi Maroc. Eh, li nga ko laaj tontoo ko. Euh, lan laa ko li nga ma laaj tontoo moo wax ba nga jox ko ko moom tontu ko moom si Cheikh ah. Omar Diagne la wax mais waxul ci kooku noonu. déedéet waxu ci de. waxu si. waaw yéen ñaar a yem rek. man laajaat ko ko laaj ko laaj ko ko. Ah, da koo fàtte pourtant tontu naa dama dama dama pragmatique rek. Ah. parce que li ma dama ni maandu daal dafa baax. parce que y a yoo xam ne dama jàpp ni non man buruxlu man ñee sax mën naa comprendre mais kii buruxlu si coow loolu. pour gën a lu tax ngeen ragal Diomaye kii euh, euh, Bougane non da ngay jaawale nit koo ragal ak koo xam ne ay ay mbiram da ngay def ba da koy seexlu. si dafa yóbbu seen fit quand même. <laughs> Bougane dafa yóbbu seen fit. non lii yóbbu na fitu ku ne. waa lii seen fit yóbbu na fitu ne non xam nga ndax yéen da ngeen yow moom surtout yow da dégg turam rek ne dama ci wax dama ci wax. non parce que xam naa ne surtout bi la yóbbu. mais ñun ñi ñaanal ñi ngi ñaanal tey jii ñi nga xam ne ñu ngi wàcc dem ci gàmm yi. waaw surtout a dem Tiwaawoon. yow burdu bi tey tijji na burdu bi tey commencé. moo tax nga bu ñu fàtte siri sa yi waaw tey maam jaara maa lay nuyu bu baax a baax a baax di la bëgge fa tabaarikallah waaw waaw jëlal lii te xam nga ni lii dafa yànji xam nga ni xam nga ni xam nga ni lii <laughs> fii moo gën ñu nekk fii di wax ay yoo xamante ni si nii ah. fa tabaarikallaa bugaan yóbbu na fitu xale yi nag. dama jaaxle daal ah, xam nga ni xam nga ni xam nga lii. Eh. wax dëgg yàlla man ma sant ki moo ko defal ne wax dëgg yàlla. fa tabaarikallaa. <laughs> te loo si xamul dañ ma ko tere dañ ma ne bëgg du ma la dégg ngay wax ay waxi bugaan. waa kaw ñu ngi lay ziar de. <laughs> Eh? <laughs> waa kaw ñu ngi lay ziar bu baax. delloo naa leen ziar bu baax a baax fa fa tabaarikallaa.